il faut ne dañ ci yem ha ah? non non sañu ñu ko mbokk yi kon nak dama leen di wax dañ ñëwaat cëpp fii ci fi nga xamne moy Touba Xayra Touba Xayra nek rond point case ba jakarlok station bi ha ah? mo leen tamal lu baax euh, ñu indi rek ay produits yu bees tàkk ah yoo xam rek euh, mom lañ leen tamal di leen ko tegal ci table ji ngeen koy enjoy di ko jënd nak di ci xapi dama naan Touba Xayra tout le monde il est dedans voilà ratio tout le monde il est dedans may wax ne Touba Xayra nit lepp lo loo mënti nekk da ci wara fex ba doon ci mbeur ñi ay champion lañ ci ndax liñ fi am ci ay produits amul fenen foo koy gis tay ngeen di ñew yow fi mës a ñu wala bagage bu baax amul fenen fu Touba Xayra les champions fi lañu am amuñu fenen ya ma ko gën a cosmétique la ak accessoire kon nak euh, li ñuy def rek moy dañuy dëggu dal dina salam salaamaaleykum wa Touba Xayra nuyu nañ la

benn paquet la boo xoolee perruque bi suñu mannequin bi takk am na fi yeneen façon lees yi boo xoolee moom ku ñëwul Touba Xayra cosmétique doo ko am ah lees redd baa ngi nii am na yeneen façon bi tamit perruque la mais perruque cheveux la xam nga lees bi dafa xaw a laal synthétique mais lii 100 pour cent cheveux la bi tamit boo xoolee am na frisé am na red da ngay ñëw rek teg si produit yu baax yi nag dañuy commencé euh, si saabu Maxton duñu tàyyi di ko wax muy saabu bu baax si picc baax si ay peau grasse saabu boo xam ni tout type de peau mën na ko utiliser bii nit ñi xam nañ ko bii mooy suñu produit tache yi nit ñi di utiliser maanaam ku ci am tache produit bii ngay utiliser ci ay délai yu court tache yi daal di dañ bii pour ñi bëgg wàññi seen biir la bii nii boo ko defee da ngay gis ni sa biir day xaw a tàng ñi bëgg wàññi seen biir boo leen ñëwee si Touba Xeere cosmétique nañ leen jaay original bi pour wàññi seen biir taxul ba tey ñu fàtte ñi nga xam ni dañ jot jóge ci accouchement xam nga des fois dañuy dem jigéen ñi bu ñu accouché ba allaité ba pare seen ween yi day xaw a daanu bii nag da koy maase rek eh, dellu say 18 ans delloo ma samay 18 ans lii mooy delloo ma samay 18 ans ah? ñëpp xam nañ ko ay saag wi ay saag yu am classe ay saag yu mën a ay saag yo xamni ne dem xew façon sac bo bëgg am na fi bu nekké sac de ville nga bëgg am na fi bu nekké sac bo xamni da ngay dem xew tamit bo solo ba jekk yépp am na fi coupe bu nekk am na fi couleur bu nekk am na fi coupe bu nekk am na fi saag yi nag ñu koy jaay ben 20000 mais bo ñëwé di jël ci ñaar ñing la koy jaay ci ñëgu 35000 promotion la ñuy def damay ñëw ci novaay li waxoon naa ko dama koy wax xam ne ñàkk koo xëy ni wóoru waa Nova mi manqué woon ñëwaat na Nova nag <laughs> ak ay centre ak boo xoolee am na am na façon bu ne am na bu góor gis nga list bii ngay gis nii yëpp yu jigéen ñi la liste bi ngay gis ni yëpp yu góor ça veut dire am Calvin Klein am Paco Rabanne la vie est belle bi xew mi fi Lolita Olympica mi fi Armani mi fi Chanel mi ngi fi yëpp yëpp bépp bu la réer Gucci marque boo dégg rek marque bu am classe boo dégg rek mi ngi fii ci Nova. duma jeexal nag te waxuñu suñu produit phare muy bii. mademoiselle Angok mademoiselle mademoiselle mhm. avi yep comme d'habitude rek ni ngeen ko xamee. déwo exclusivité exclusivité bi. dewo yi façon bo bëgg amna fi couleur bo bëgg amna fi comme ni ma koy waxee rek six senteurs 6 couleurs 6 xeet yu neex yu bokkul. ma bàyyi la rek nga joxe numéro téléphone yi fàttali leen adresse yi ndax nak eh, wax waxat lay doona am ah. ñoom miin nañu ci lu min nañu Touba Xayra ci lu baax ak li nga xam moy produit de qualité yim mu tek ci table. wa Touba Xayra cosmétique mi ngi nek Parcelles Asseni unité 8 jàkkaarloog station bi bo ñëwee nak suñu numéro téléphone moy le 33 855. 91 27 33 855 91 27 wala le 77 278 11 11 77 278 11 11 le 77 224 23 74. bu ngeen parcelle bala boutique ngeen ba Touba Touba Touba Touba Touba cosmétique